moo tax dafa jot sénégalais yëpp xam ne ñun lu ñuy xeex xeexaluñu ko suñu bopp ndax mbébétam bu sottee kenn dootul wax ci réew mi de kenn dootul wax kenn dootul noyyi sax waxuma laa wax à part wiiw Macky bravo Macky mandat à vie Macky tu es le plus bo ku wax la safaan ba bu yowoo nga xam ni musiba na dal sa kaw la ca des tam ñuy dellu di apporter suñu soutien ci détenu politique yépp Macky Sall dafa battre le record de la détention pour crime d'opinion tey ñu bëree bëri ñu ngi ci ay loxoom lañ leen toppee mooy xalaatin gu wuute ak xalaatam léegi laa gis ci presse bi ñu ne Karim Xrum xaax ak euh, euh, euh, Cheikh Omar Diagne suba lañ leen di présenté ci juge d'instruction premier cabinet te li ñuy def yëpp ñoo ko tey gis nga suñu jàppee nit dañ lay jàpp ci lu ñàkk fayda ñu def pression ci euh, juge d'instruction bi ne ko yóbbul dossier bi ci ci euh, juge d'instruction ne ko yóbbul dossier bi instruction ayu ñàkk fayda yoo xam ne jaruñu ci jàpp nit sax war woon dem sax flagrant délit mais dañuy def pression ne ko fexeel ba yóbbu dossier bi instruction pour métital rek comme ça waa ji ñu téye ko fa 6 mois 6 mois nga privé nit de liberté ak liberté ni mu mel ci nit nga privé nit de liberté pendant 6 mois ci ñàkk fayda yoo xam ne bis boo ko présenté devant un juge ñu war koo atte gën saa bëri comme ñoom juge yi dañoo tàmm di bugg a couper la poire en deux yooyu dem ba xam ne lii du dëgg mais comme ni ci ëpp ci ñoom ragal nañu nguur ragal goo xam ne moo tax suñuy indépendance la magistrature dañuy perdre suñu temps léegi mooy nañu ne boo nañu dañ ko def sursis bu ko defee sursis bi suñ ko defee trois mois suñ ne def nañ ko 6 euh, mois dont 3 3 fermes moom tëdd na 6 6 mois ba pare ñu ne ko bàyyi leen mu dem ñibbi dañuy fooye léegi justice dañ koy fooye dañ koy fooye xoolal li xew keroog mbuur procureur ci boppam chargé na l'autre partie ne ko yaa tooñ yaa provoqué yaa indi xeex bi problème bu am ci dëkk ba yow la xam nga loolu soo ko waxee war wax ji jeex na mais ci réquisitoire am mu ñëw demander deux ans dont un mois un an ferme parce que il fallait que mu jox ñeneen ñi benn sucette bu ñuy bu ñuy téye ñoom it ñi nga xam ne ñoo ñooy patron mais loi dafa ne un crime même su doon crime am na un crime quand il est provoqué il y circonstance atténuante kon naka la ñu mën a ni ñuy fooyee léegi justice bi ak ni ñuy fooyee liberté nit ñi ci réew mi toll na foo xam ne après suñu jógee ne ñin ñi ñëw bëgg a monter les foules contre les magistrats déedéet ñun amuñu intérêt monter magistrats yi ñun kenn ku ne ci ñun am na mbokk magistrat kenn ku ne ñun am na frère wala cousin wala ku la jege koo xam ne magistra la kon amuñu benn intérêt monter leen contre qui que ce soit waaye actes yi ñuy posé am nañu sañ-sañu apprécier ko ndax ñun ñëpp dañoo jàng droit ñun ñëpp li ci ëpp ñun fac droit la ñu génn ni mu tuuti tuuti am nañu déyaa ci droit ñu praticien nag te dañoo yor suñuy avocat di jëflanteeg ñoom am ay xaritu magistrat di waxtaan ak ñoom lu fi waay def te jaaduwul yow soo toogee wéet ak sa bopp xam nga ni jaaduwut juge bi ñu jox dossier Pape Alé Niang avocat yi dañ ma ne gis nga am na juge yoo xam ne bu ñu leen ko joxoon jour boobu Pape Alé Niang day ñibbi këram kuñ fi bëgg a def yóbbu instruction juge boobu lañ koy jox kuñ fi bëgg a yóbbu instruction ñaar ba ñetti juge dañ koy jox def leen pression ne yóbbul instruction ba pare invoqué article yoo xam ne diffusion de fausse nouvelle ak yu mel noonu nga xam ne obligatoirement mandat de dépôt la mais Pape Alé lay su dee loolu la ñu wax lañ ko toppee man maa ko njëkk wax conférence de presse li tax jël si wuñ ma maa njëkk wax man maa ko njëkk wax te ne yor naa document yi li tax duñ ma jël si kon li xew ci réew mi na ñëpp delloo si seen xel réew mi ñoo ko bokk de ku yaakaar ni mun nga dëkk ci lor nit ñi ba pare yow toog dem tànk sa kër lekk sa ceebu jën naan sa ataaya jël père de famille yóbbu ko prison xañ ko ay doomam xañ ko njabootam loolu ba kañ lay wéy loolu tôt ou tard dina jur ci réew mi loo xam ne ah maara day taali menacé wuñu nag dañuy dañuy araftu pendant qu'il est temps kenn ëppalewul sa moroom ci ci réew mi nekk naa juge taxul nga gën nit ñi sénégalais nga ñuy sénégalais applique la loi jàmm ne ñooy mais soo bàyyee loi dugg ci yeneen fitna ngay andi ci réew mi te fitna juge rey na fi 14 nit mooy manipulation yu ñàkk fayda yi Serigne Bassirou Gueye doon def rey na fi 14 nit bu ñu fàtte yooyu au nom de quoi kon bu loolu weesoo nag de kii wax na ko léegi Aïda man damay féliciter suñuy député parce que war nañu fexe ba lii priorité réew mi bu ko fàtte mukk parce que dañu jàkkaarlook ñoo xam ne dañoo lajj ba ñëpp xam ne lajj nañu waaye dañoo fenn rek lañu aay seen mën-mën yëpp fenn la mooy allumer des contre-feux pour nasaxal xelu sénégalais yi ñu nekk ci ay détails commenter ay détails suba ak ngoon. fàtte nag lan mooy problème yi lan moo tax yi tey ndaw ñi amuñu liggéey lan moo tax mbay mi doxul lan moo tax càmm gi doxul lan moo tax napp gi doxul lan moo tax amuñu ay industrie lan moo tax coût de la vie toll fi mu toll nii loolu rek moo war a doon tey suñu fareta fii ci réew mi leneen lépp su ñëwee pour féexal suñu xol la ñun ñëpp am nañu ñaan na am na ñu yéene yéene nañu Sénégal gagné coupe du monde day féexal suñu xol parce que nit dafa soxla loolu dinañu am bànneex ñaari fan ñetti fan un mois ñu feete mais su loolu weesoo su dee problème yi may wax nii réglé wuñu ko sénégalais bu nekk day yeewuwaat nag ku amuloon dépense nekkaat ci situation ñàkk dépense ku munul faju nekk situation bañ a mun faju ku amuloon liggéey ama amagoo liggéey ba léegi ndax coupe du monde du ko fi andi moo tax yooyu yëpp nañ koy suivre nañ ci am passion làmb gi suñu sport la bu amee nañu seetaan nañ ci am passion nañu am lépp waaye bu mu tax ñu fàtte suñuy farata bis bu ñu amee niveau boobu rek léegi réew mi soppiku moo tax damay féliciter suñuy député ndax assemblée bi xam ngeen nii gars yi sonn nañ de fi mu ne nii ñu ngi ñaan yàlla marathon budgétaire bi gaaw a jeex xam ngeen seen argument yëpp lan la ku yéeg ci tribune ba Ousmane Suite Boote yow ñu yóbbu la assemblée nationale pour nga wax ci farata réew mi benn argument la ñu am mooy Ousmane Suite Boote. député yaa ngi leen fay sifaay sifaay yu métti yoo xam ne ministre bu ñëw jaaxle na te waxoon nañ leen ko ñu leen di félicité ci taxawaay bi ñu leen félicité ci ni ñu ñàkkee voté budget yi amul benn budget boo xam ne suñuy député voté nañ ko ñun suñuy député Yewwi Askan Wi laa wax parce que ñoom la ñu am relation ak ñoom ñoom lañu ñu campagne ànd ak ñoom campagnal leen ñu yóbbu leen assemblée nationale te dama bëgg sénégalais yi dafa am lu ñu waxante woon ak ñoom bi ñuy campagne ak ñoom ci taxawaay bi ñu war a am assemblée nañu xool ndax suñuy député tey am na ñu taxawaay boobu wala amuñu ko xaw ma député keneen nag parce que kenn ku nekk da nga amoon engagement boo jël sa ak réew mi waaye suñuy député ñun yeewi askan wi ñoom ñëpp su ma doon lim. ñoom ñëpp bari nañ fa lool ñoom Aba mbay ñoom euh, Guy Marius ñoom Abass Fall ñoom Aïssa Touré ñoom euh, euh, Babacar Mbeng et cetera parce que ku lim juum ñoom ñëpp seen taxawaay Sénégal yëpp gis nañ ko te loolu la ñu waxante woon ak askan wi bu ñu yàlla woon mayoon majorité rek ngeen di xam nag lan la député di jëriñ dëgg dëgg dëgg dëgg teewul ñu ngi def li ñu war a def ndax it Euh, wax nañu ñoom li tax voté wuñu budget yi bi ñuy def campagne dañ leen waxoon ni ñun demuñu assemblée nationale pour bloquer réew mi su ngeen joxoon majorité lu ñu indi muy njëriñu réew mi nañ ko voté luy safaan wa duñ ko voté budget boo xam ne un du budget bu sincère même loi de règlement il a fallu suñuy député taper sur la table pour ñu gaawantu joxe benn loi de règlement bi ñu ko xoolee le budget bi ñu exécuté bu passé bi il n'est pas équilibré bi boo jëlee rubrique comme par rubrique comme boo jëlee budget global bi dafa bëri loo xam ne boo jeexee ci biir doo ko fa fekk ñu ne budget pré élection la mu ne budget social la def ak budget répression mooy ay milliards yoo xam ne pour jënd lu ñuy dumooy sénégalais yi est-ce que ñun ci jamono joo xam ne sénégalais yi lekku lekkuñu naanuñu fajuwuñu ñun dinañu voter budget boobu loolu moo tax ñu am taxawaay ba ñu fa am soulever nañ fa ay problèmes yoo xam ne ñoom amuñu tontu bi wala ñemewuñu koo tontu te dina am ay suites judiciaires yoo xam ne suñuy député dinañ ko posé kon ma ne dañuy féliciter suñu député yooyu parce que dañ leen santoon ñu delloo ci débat bi ci li nga xam ne mooy priorité sénégalais yi priorité sénégalais yi du xastante assemblée nationale de moo tax li leen wax mooy su gars ñëwee di xaste bàyyi leen ak seen xaste waaye kenn ku ne sa cinq minutes de trois de temps de parole waxal ci lii farata réew mi su dee mbay mi moo ñëw waxal ci problème mbay mi deux cent soixante quinze francs yi bëgg a jox paysans yi doyul matul te jaarul yoon te loolu dinañ ci ñëwaat parce que am na liggéey bi ñu ci terminé ak jamono ji ñu toll ñu ne leen priorité réew mi du débat sur le troisième mandat parce que bu ngeen seetloo depuis jamono yi passé yëpp Macky Sall dafa yónni ndawam yëpp ci télé yi ne leen dem leen poser débat sur le troisième mandat xam ngeen lan moo waral lool li nga xam ne mooy coono réew mi la bëgg nit ñi fàtte ko naan troisième mandat dina am du am nangam nangam Macky Sall si les garçons na taxaw ci kanamu sénégalais yi mu wax leen bu boobaa la war a xew dina xew du affaire Ousmane sonk du affaire Déthié Fall askanu Sénégal bu dee nangu nañu troisième candidature ñoom la bu dee nanguwuñu ko ñooma waaye laam-laame beeg yooyu di créer ay faux baa nit ñi nekk ci. du troisième dina am du am man de duma ci wax pour le moment xam ngeen lu ñu ñoral lu ñu soxal ñun fi mu toll nii ba ci njëkk mooy yorin gu ñaaw gi ñu yor réew mi wax nañ jamono jële li xew ci jëndum ngànnaay gis ngeen ngànnaay dafa yàgg tas ay réew ngànnaay dafa yàgg tas ay réew te ngànnaay ñun suñu système ni mu doxee dañ koo musa a centraliser am ñu koy doon jënd ñu xam ngànnaay bi fan la jóge naka la duggee ci réew mi fan lañ ko stocké ba nga xam ne ngànnaay gune dinañu xam kan moo ko yor à temps réel mais bu ñu demee ba ay ministère de l'environnement di passé ay contrat 45 milliards ci suñu budget réew pour ne day jënd ay arme de guerre problème am na ci réew mi gis ngeen ñun kenn duñu kenn duñu fa fàtteloo loolu waxu troisième mandat jotagul ngànnaa yooyu il faut mu leer sénégalais xam nu mu demee nga jël ko dem jox ko ab trafiquant d'arme boo xam ne nee nañ dëkk bi mu dëkk ñu ngi ko fay wër ngir ay luubal ak ay yu doy na yu doy waar est-ce que xam ngeen ni Macky Sall mi ngi tayle senegal te lii yëpp nag dara tax waru ko lu dul pétrole ak gaz ak zircon ñoom seen mi ngi dugal ci biir réew mi ay nit ñu dangereux ñoo xam ne ngeen xam ni coowal 45 milliards yi mu jëndee armes yi bokkul ba léegi ak contrat bu duuna duun bi nga xam ne jox na ko ay israélien pour ñoo ñu defal ko benn ligne de garantie pour mu jënd des dizaines voire des centaines de milliards d'armement mooy li ngeen di gis léegi dara su xewee ñu génnee ay dragon ay chars combat pour pour intimider pour xëbal pour xoqatal askan wi ba kenn dootul ñeme wax loolu il faut mu leer il faut mu leer moo tax ñu jox ndigal suñuy député déposé nañu pour ay commission d' enquête parlementaire parce que ñaar yi ba léegi bokkuñu de 45 milliards yi bokkul ak bu bu yahud yi te loolu faw ñu wax ci ba mu leer lii suñu yitte ba léegi ci scandale yi dégg ngeen ma sama dernier point de presse ma wax leen suuf si mu jël di ko jaay jox ko même yahud yooyu même même israélien yooyu mu tuddoon noonu la jël dem dagg dëkk ba jël au commandement de la gendarmerie génne leen fa dem luwel leen almadi ñuy fay lu cher mu jël lu mat 5000 mètres carrés jox ko ñooñu pour ñu tabax fa ngandim immeuble defar la ñuy defar te ñooy moom immeuble bi ñoom bi ma ko dénoncé dégg nga xaw ma directeur bat bâti génn di wax ay waxu picc li mu wax yépp dafa confirmer li ma waxoon est-ce que ñun dañuy seetaan Macky Sall continuer moom ak ay ñooñam di pasar pasar réew mi nii di dem jël ay waa bitim réew di leen daggal suñu réew di leen ko jox dus dus bàyyiwul suuf si suufu taax yi comme suufu àll bi bàyyiwul géej gi bàyyiwul petrol bàyyiwul gaz bàyyiwul zircon bàyyiwul lenn ñun ñu toog rek di seetaan boo waxee ñu ne dañuy weddi ma dama leen naan toujours man de pare naa pour ñu organiser débat ma réitéré ko fii ministère de mines na toog ministre de l'économie et des na toog ku ñu bëgg na ñëw toog moo gën nekk fii di fay ay nit ñu nekk ci mbedd mi di wax su doon pays bu normal la ñu nekk dañuy ñëw ñu débat débat public ma démontré leen ni jaay réew mi. Macky Sall ak ñi mu àndal jaariñu réew mi suñu ñëwee xëy na non c'est des questions techniques vers tout le monde question technique wu lan jaay alalu réew mi contrat yi ne fag ñu téye ko nga naan question technique kon dégg ngeen keroog assemblée nationale premier jour bi Guy Marius Sagna interpellé na ministre des finances ne ko israélien yooyu ba léegi yow signal ngeen leen benn exonération ne waruñoo fay l'impôt fii Sénégal dégg leen baax li may wax dafa am solo jël suñu alalu réew lu mat ay centaine de milliards nga jox ko ay israéliens waa bitim réew ñoo ñu ne ñoom duñu fay impo Sénégal débrouillez-vous mais duma fay l'impôt ñu wel déwëlbatikuwaat Abdoulaye Daouda Diallo signé leen benn document ne leen du ngeen fay impôt du ngeen fay TVA fii biir réew ay dizaine de milliards ñu ñàkk noonu ci lu neex waa bitim réew te jamono joo xam ne tey jamono ji ñu ngi def tournée PPA boutiquier bi ne ci koñ bi su fayul cinquante mille francs yi moo war a ñu tëj boutique am waaye ku jóge bitim réew moom mun na ñëw ñu baal ko impôt wu ay milliards yi milliards loolu est-ce que jaadu na lii mooy les vrais ba au Sénégal c'est pas ay troisième mandat wu Macky waxu la waxu kacew buñ ci tollee dina wax sénégalais ndax day def troisième candidature parce qu'il ne sera pas président une troisième fois au Sénégal incha loolu au moins ñëpp xam nañ ko la ca des yëpp ay waxtu la ak ay ñun suñu yoon new ci. scandale yi fi am dégg ngeen démb ab ministre ñu interpellé ko ci scandale 29 milliards prorog yi ministre bu nilaar boo xam ne làkk français bu leer sax mënu ko wax ci assemblée nationale ministre des finances moo mujj jël kàddu gi di ko tontul. ñu jël ko def ko miir pour ne ko demal saaga Sonko dara xamu ko dem leen ngeen def interview ak moom ngeen ne ko mu làkk français fii lañ ko yóbbu France mu naan xaw ma ñun suñu tourisme on a des animaux xaw ma loolu mooy ministre Sénégal léegi nit ñu ñàkk solo la ñu jël benn qualificatif qualification la ñu am mooy mën nañoo saaga opposition bi ñu def leen ay ministre ñu dem assemblée nationale ay député di leen toroxal foofu mu weddi ne moom benn rapport épingle ko waxul dëgg waxul dëgg il a été épinglé par le rapport de l'IGE mun naa leen liiral passage yu bëri xam nga ñoom li ñu xamul ñun document yëpp la ñu am téye léegi dégg naa saa yu ñu xëy dañ naan waa ji fan lay jële kan moo koy jox léegi weddeetuñu de waaye kan mooy tóob bi la mooy coow li rapport IGE bi li mu wax émission par le ministre de tutelle d'un ordre de service de démarrage antérieur à la notification et à l'enregistrement du contrat En raison du principe de la chronologie des actes de procédure, la notification de l'ordre de service de démarrage ne peut être envisagée qu'après celle du contrat auquel il se rapporte. Ce principe basique du droit de compte des contrats administratifs n'a pas été également observé dans le le contrat n'a été notifié que le 25 juillet 2016 à l'entreprise Green 2000, le ministre Mbambeigna, assurant la tutelle du PRODAC, avait déjà émis cinq mois auparavant un ordre de service numéro, etc., etc. Cet état de fait est d'autant plus déplorable qu'il résulte non pas d'une ignorance des textes, mais plutôt d'un souci de répondre aux exigences non contractuelles de monsieur Daniel Pinassi. kooku dem taxaw assemblée nationale Sénégal yëpp di ko déglu mu ne moom rapport épinglé épinglé ko damay toog ba si ak ma ne ñii est-ce que seen bopp yi am na lu ci nekk ak nu ñu yabee Sénégal yi kooku la Macky Sall jël def ko ministre ak ki nga xam ne moo luubal 94 milliards rapport nag ne recommandé naa ñu ubbi léegi de poursuites pour escroquerie sur les deniers publics Macky Sall jël jëm jël jëm jox ko ONAS léegi naa bi mu egsee fekk na fa déjà benn financement de 40 milliards bu yóbboo sénégalais xam ni 40 milliards yooyu <laughs> lu yàlla xam baax na mais lii mooy Sénégal lii la ñu war a waxti waxtaanee ci réew mi Macky Sall respecté wul sénégalais yi amul benn respect ci sénégalais yi xoolal sagaru nit yi mu yóbbu assemblée nationale. ay saagakat ñun de dañu war a sant yàlla ñun ñii bu ñu demulee assemblée nationale ñu bàyyi leen ak suñuy ndaw ñu leen di defal liñ leen di defal foofu dañ ci dellu sant yàlla kon man li ma bëgg a wax mooy ñun Macky Sall day jaay ni moom tacticien politique la Macky Sall ñun ñoo ko dàq politique foofu ba ñu commencé jàmmarloo ba léegi li àndi ba fii moo yor état moo yor armée moo yor justice moo yor renseignement généraux moo yor lépp waaye li ñu àndeek moom ba fii ba tey bi ñu génnee élection législative il était minoritaire xam na ni ñoo ko dàq politique fuuf yi muy def fay ay nit dem leen ci télé yi wax def leen di def leen laa loolu ñun on est focus sur des objectifs très précis te ni ñu def ba taal xelu sénégalais yi ci loolu la ñu continuer nekk pour sénégalais yi xam li xew ci réew mi priorité Sénégal mooy sénégalais yi sonn nañu waaye kan moo ne fii te mënul ne moom sonn na nañu wax ci coût de la vie dund gi ni mu chéré lii mu def nii réglewul problème sénégalais yi de ma wax leen ko léegi nag bu leen fàtte ni Macky Sall bi mu toogee 2012 première mesure yi mu jël c'était pour la réduction du coût de la vie affaire bi wàññeeku woon na ñëpp saluer ko ne au bout de six mois un an dafa mel ni ascenseur la jëlaat. tey lu doon jar 2012 500 mi ngi jar tey 1500 lii mu def nii du régler problème mu sénégalais yi te li gën a garaaw mooy day boole sénégalais yi entre ñoom naa leen wax li ma wax li ma wax fu ma ko teg parce que léeg dañ naan ñun duñu proposer